personnellement bon nga jéem a xool loo ciy def état yi mu ngi ci góorlu bon collectivité locale yi mu ngi ci góorgóorlu population yi tamit individuellement ñu ngi ci góorgóorlu donc euh, nit bu jëlee nit jógee personnellement de façon individuelle def acte ah loolu kon vraiment dañ ko remercier parce que souvent état lañ doon xaar wala xaar homme politique yu mag yi mais lii de façon individuelle nit jóg rek ne bon xaaral ma tam ma xool de façon personnelle ce que je donc day nekk mbir boo xam ne daal am solo la waaw kon nag li naa dañ ci kontaan bu baax xam ne ki lii euh, nekk na initiative individuelle boo xam ne c'est très important parce que koñ bi moom euh, ñëpp ñëpp ñëpp di fi dëkk am ñi xam ne bon ils sont au courant ñeneen ñi xamuñu ñii tamit bon xam nañu mais tamit li ci ëpp daal moo di ki nga xam ne yëg na situation bi ñëw sensibiliser def donc dafa nekk loolu loolu lu am solo kon ñu ko ci encouragé day ñaan ñëpp ñi nga xam ne gis nañu gis nañu euh, événement bi ñu jàpp ci ñu jàpp ci bon jëm ci dem leen jëm leen dooleel encouragé leen waaw man daal loolaay def danga xam ne daal lii dam leen di jàppale encouragé leen taxaw leen ndax affaire bi jëm kanam parce que geste ba geste ba am solo la. am na ñoo xam ne bon am nañu possibilité am masque ñi amuñu possibilité bi moo nga ñu def façon benn bénévolement def ci sa xaalis jënd joxe ko comme ça population bi mun ci euh, bénéficier wu donc lu am solo la donc dama koy encourager vraiment di ko remercier di ko ne vraiment di courage bon ñu ngi sa ginnaaw di la jàppale vraiment bon on est ensemble daal merci beaucoup très gentil bëriwul mais pour euh, voilà xoolal rek noo ko tasee ci kër gi quoi parce que ah. dañu bëgg képp ku dëkk Grand Yoff rek gis ci sa bopp daal ah, ah. voilà ok geste vraiment moo ci am solo donc c'est vraiment gentil ñu leen remercier di la encourager da wax ne képp koo xam ne am nga initiative mel tamit nga si jàpp parce que c'est pour c'est pour bénéfice euh, de la nation donc war jarul ñuy xaar état wala ñuy xaar euh, politiciens yu mag yi wala ñu xaar euh, am defar yu mag yi mais de façon individuelle ku am rek loo ci mënut am rek def ci donc set ci bol bol am solo la donc encore une vraiment merci beaucoup. waaw jërëjëf. Babacar Hott euh, dëkk euh, fii ci Grand Yoff quartier bi ñu naan xaar yàlla juddoo fii yaroo fi màggee fi ba toll ni ñu toll nii voilà bon boo gisee ñuy def actes yi. bon parce que fii lañ dëkk et que fi ñu dëkk ñun ñëpp xam nañ ni quartier yi nga xam ne yàlla daf ñu nattoo dafa dañoo dañoo bëri njaboot macha allah et que wax dëgg yàlla xale yi aussi kenn mënu leen contrôler dañuy génn tout le temps dem di foow yi et doo xam daal donc tey booy gis suñu ginnaaw nii euh, yéen a ngi koy gis teg nañ fi benn barigo euh, def ko aussi ci buntu quartier yu bare fii ci xar yàlla. pour xale bu ci génn sa yaay yëgul sa papa yëgul balaa ngay génn raxasul boo ñëwee aussi balaa ngay dugaat ci koñ bi nga raxasu quoi parce que yooyu ay matukaay la yi nga xam ne amaan amaana saabu cherul euh, ndox cherul omo eau de javel ak yooyu cherul mais du du ñëpp a ko mën a jënd ñun loolu moo waral bon quartier bu ne koñ bu nekk ñu teg fa benn barigo ndox chaque ñaari fan yu ne. ñu dem duy ko ba mu fees dell duy si ñaar ba ñetti butéelu javel euh, eau de javel donc teg saabu aussi à côté pour ku ñëw rek mën a mën a raxasu voilà masque yi aussi ñu ngi koy ñu ngi koy séddale ñu ngi koy séddale mais lu jaadu la parce que aussi dañu gis ni bon situation feebar bi fi mu toll jéggi na dayoo et ku nekk euh, da nga ci war a béy sa waar ñun xaaruñu état. ñun bon dama naan ay baadoola la ñu donc gis nañ ni ñi am euh, ñi yàlla may alal ñi ngi dimbalante seen biir mais ñun ñu ne ñun quoi pas ñun ñu dimbaleente suñu biir parce que tey bon fu feebar bi toll ku sañoon ku ne takk masque mais am na ñi nga xam ne bëgg nañ mais amuñu loolu moo waral ñu ñu commandé deux cent cinquante masques comme ni ngeen ko gisee kër gu nekk ñu dugg séddale fa dox ci mbedd bi sédd séddale aussi ñuy dox te takkuñu masque dem aussi ci délégué de quartier bi nga xam ne voilà moom il est le premier magistrat di quartier moom aussi jox ko benn benn benn benn benn euh, kii bu xaw a takku pour que aussi mu jox ay waa këram. voilà man yaakaar naa ni bon buñ nee sensibilisation rek dafa dafa war a tàmbalee ci ci ci parents yi. bon ñun wax dëgg yàlla duñu duñu xëy bés te woowuñu xale yi sensibiliser donc ñu ngi ko tàmbalee si si waajur yi waajur bu nekk aussi comme ni ngeen ko gisee dem nañu waxtaan nañoo ak yow mais mooy li ma la wax sànq mooy ñëwaat xale yi la nit mënul contrôler ñi ngi dem wax dëgg yàlla euh, foo wi ñëw mais daal ñun lu ñu mën si sensibilisation rek ñu ngi koy def xanaa ñu ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu yóbbul ñu feebar bi si jàmm